bokki jullit yi bokki taalibe yi eh, tey jii noo ngi am mbégte jàkkaarloo waat ak Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa eh, ci borom mbég mi borom Pastef bu réy bi eh, mu jàkkaarloo ni ak rakkam ji nga xam ne moom la denk kàddoom tey muy Cheikh Mahamadul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir mu fego ak Serigne Khadim Diop ministre gis ngeen ko noonu. tey jii woote boo xamante ne bi woo ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu médecine te muy hôpitalu Matlabul Fawzayni Eh, ngeen jàkkaarloo ak ñoom noonu ci jataay bi mu woo it ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu njàngaleem alquranul karim gis ngeen sëriñ Mamor moom Cheikh Mamadul Fadal mi ngi toog waaye kenn nattable na sëñ Muntaxa itam yëpp mi ngi jëm ci lépp luy dundal xam-xam waaye luy so jëmbat ak ruux ba mu sell eh, waxtu wu ne foofu la yitteem jëm tey ji nag mu dajeek ñoom daje bu am solo boo xam ne eh, lépp mbégte la waaye léppit nag ñaax leen ci liggéey bi wan leen ne maa ngi leen di bàyyi xel ci euh, fu ngeen mën a ne noonu mu bàyyee xel jàngkati alxuraan yi ak jàngalekat yi bàyyee ni xel daayira yi ziyaare yi ñu wër di ziyaare bàyyee ni xel seexi sëriñ Tuubaa yi noonu la bàyyee xel kenn ku nekk ci la ngay yëngatu. ndimbal wéer yi loo xam ne sëriñ bi da koo def ci daara yi mu jëm ci wàllu wér gu yaramu ñi nga xam ne ñooy ndongo daara yi sëriñ bi joxe ci lu war mat ñaar fukki million yoo xam ne nañ ko def ci euh, wér gu yaramu ndongo daara loolu kon moo taxoon daje bi tey. ci ndigalul Cheikh Mamadou Bachir bi nga xam ne mooy porte parole bi ñu dajale woon fii euh, sëñ Mamar bi nga xam ne moo jiite daar yi fii ci Touba ak Rabita bi dajale fi tamit euh, ñeneen ñoo xam ni ñu ngi bokk ci agence CMU ak ñun ñi nga xam ni euh, ñàkkul dañuy yëngu ci ay ONG di jàppale daar yi muy ONG bu ñu naan Global Solidarité Initiative GSA yi nga xam ni ñun bokk nañ ci ñu ko jiite. Euh, loolu nag euh, li ko yombal mooy dafa am liggéey bu ko jiitu woon mooy benn recensement muy cartographie géolocalisée des Daara Touba boo xam ni euh, raabita bi ak suñu ONG bi defoon nañ ko mooy di natt di xayma li mu daara yi ak li mu dong yi fii ci Touba loolu ñu ngi ko def ci weer yi weesu yàlla def ñu am ci 1524 daara junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti daara war toll ci cent vingt 124 000 wala cent vingt 127 000 dongay daara. ci loolu lañ sukkandiku ne kon bu ñu bëggee dugal dongo yëpp ci CMU dina war a toll ci ay 124 millions sëñ ba nag naa naa tàmbali dugal 20 millions ci loolu kon loolu mooy dëgg-dëgg liggéey bi. gis ngeen euh, euh, daraja ji mu jox sëñ Mamor ak àq ji mu ko jox ngir xam ne moo ko wuutu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi daraja jooju it la jox ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu médecine bi xam ne itam foofa wér yaram ci la lépp mën a sukkandiku te bu sañoon. Eh, eh, fu ab jullit mën a nekk tawat foo doomu adama sax fu mën a nekk eh, la koy faj sëriñ Muntaxa moo koy def loolu mooy yéeneem waxoon na boppam bu yàgg yàgg yàgg wax itam fam ne kenn nattab li wut yërmaane ji nga xam ne sun borom def na ko ci moom wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin ji ñu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek la cheikh Mouhamadul Muntaxa di dund loolu moo tax tey jii mu woo leen woo bokk yëpp ñu bokk fi teew mu am limu xaalis boo xam ne yëkkati na ko jëmee ko ci wàllu njàngum alxuraan mi. dama ñëw fii tey si Touba ndax euh, xalif général bi dafa jël ndogal bu am solo dafa jël ndogal jël nongo daara yi dugal leen ci CMU bi mu nekk affaire bu am solo. ndax fan yëpp ci gannaaw ñëpp yëg nañ ne dañoo jëloon benn ndogal élèves yu nekk ci euh, daara yi kow yi daara yi tubaab yi ñu créé ñu naan CMU élèves. tey nag moom dañu tàmbali euh, jublu si ndongo yi nekk ci daara yi dugal leen ci CMU bi xalif bi daal di jël benn enveloppe bu am solo tey dafa joxe euh, ñaar fukki million mais dafa prévoir joxe téeméeri million ak lu topp téeméeri millions ak euh, ñeent fukk ak lu topp. pour ñu dugal si biir seenu daara yi ndongo yu takku mu nekk lu am solo moo tax tey ñu ñëw taxaw fii pour rafet lu loolu pour wane mbir mi sëñ bi def mbir bu am solo la. Serigne Touba nga xam ni moom dafa mat macha allah nga xam ni ko ko fi nekkal itam eh, da ngay mat loolu moo tax lépp loo xam ni yërmande doomu aadama la dañ ciy taxaw loolu nag la sëñ Mountakha def tey muy lu rëy rëy rëy ndax moom njariñ rek la sëñ Touba njariñ lool nag eh, wér gi yaram da cee am doole lool ñu gis ni mi li nga tax moo tax mu taxaw pour fexe ba sénégal yëpp yëpp foo taxaw ba sa doole bare ba sa bariwul nga mën koo eh, nga mën a jot ci wér gi yaram googu ñu yaatal ko ba yóbbu ko ci élèves yi mu am ci Sénégal yëpp léegi nag ndongo yi nga xam ni ñoo ci war a eh, am wàll jotaguñ ci woon sëriñ bi ni bëgg ngir itam li ci nit ñeneen élèves yi jot ñeneen jot dañoo bëgg ndong yi jot ci mu jël lu rëy lii tàbbal ko ci ñu ñëwoon ah, di ko ci sargal di ko ci wax ni itam yére yooyu mu am danañ ci taxaw incha allah ba ni nga xam ne noonu la élèves yi amee accès ci couverture maladie universelle CMU bi ba paj mu yomb ci ñoom loolu noonu tam danañ ko yombal ba ndongo itam mën a jot ci paj mi paj mu yomb ndax seen jàng mën a taxaw. boole ko itam yëkkatiwaat beneen lim boo xam ne jëmee na ko ci wàllu hôpital yi rawatina ñi yor feebar boobu ñuy wax jalis yal na leen yàlla saafara. Serigne Mountakha Bachir yal na suñu borom dolli kattanam te may euh, yëkkati euh, kàddoom jëme ko ci. Euh, li nga xam ne mooy mbiru jalis ak insuffisance rénale nu mu ko defee mooy dafa yëkkati ab lim bu am solo bu fanweeri million wax ne ak tàmbali la ci projet bi nga xam ne euh, association bi lëkkale dialysé yi euh, yëkkati woon nañu ko ànd kook ñun ci tabax centre de dialyse boo xam ne dafay am capacité ngir dékku euh, way tawat yi nga xam ni seen lim dafa am solo ci ci dëkk bi kon dañ koy rafetlu di ko sant boo fi sant yam te di ko ñaanal suñu boroom fay ko euh, maamam Sëriñ Tuubaa euh, gën a dëkk ci moom loolu dañu ci euh, mënu am mënuñu am kàddu yi ngir maanaam biral suñu cant ndax jëf ji dafa dafa yegg ci dafa yegg fu sori ci ñun euh, waaye daal mm, sant nañu daal sant nañu suñu suñu borom. lépp nag li muy tegtale rek wane bëgg ne doomu aadama yi kenn ku ci nekk fa nga nekk nga yëg ne sëriñ Muntaxa bàyyi na la xel sëriñ Muntaxa itam am na ci yow yéene ma nga lay ñaanal loolu rek mooy yéeneem loolu moo tax tey jii mu dajale leen yëkkati lim boobu. jaarale ko ci loxol Cheikh Mahamadul Bachir mu teg ko ci seen loxo sëriñ euh, Abdul Aziz Majalis mi ngi noonu toog waaye mu feggoo ak sëriñ Bachiru mu feggoo ak sëriñ Mamor feggoo ak euh, ñi yëngutu ci wàllu googu yëpp rek euh, dalal leen waxtaan ak ñoom it waxtaan wu yaatoo yaatu woo xamante ni bii encouragé waat na leen ci seenub liggéey eh, gën leen caa ñaax waaye gën leen caa ñaanal itam ngir suñu borom defal leen ci ndam noonu la ko defee itam ak jàngkati alquran yi ak jàngalekati alquran yi kon yaakaar naa ne Serigne Mouhamadul Mountakha kenn nattable wut ne mi ngi bay waaram ni ko ni ko li mu waxee ne liggéey bi dafa dal ba daw ba dal ci sama kaw waaye mosuma ko bàyyi xel benn yoon waaye nag yokkuma dara lu weesu gën a am rek rafet njort ak gën a tax sama laxasaay gën a bàyyee sama bopp Serigne Touba noonu daal la yendoo ak ñoom bi euh, bégal leen teral leen ñaax leen su ko dee nag daal leen di yëkkati nag ñaanal leen ñaan ngoo xamante ne bi gu mu tibbale ci xolam la ñaanal mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci hôpitaux yi mu ñaanal leen ak wér ñiy jàng alxuraan mu ñaanal leen ak mokkal yàlla ñu yàlla defal jàmm ak xiwal bi barakati cheikhuna ahmadul xadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu